constaté nañ que vraiment fan yi ndox mi dafay couper lu bari te je pense que loolu bu amee donc am société bu fi nekk pour ne pas le citer donc war na a def ay communiquer pour euh, informer la population c'est bien parfois ñu koy def mais du yegsi ci base bi et te jàpp naa ni donc Saint-Louis dëkku ndox la tay jafé jafé ndox yi nga en tant que région du fleuve ñun warul am d'autant plus que donc usine bi nga à côté et di lancer un appel euh, aux autorités donc ñu jël ay mesures yoo permettre situation yi nga dañ koy donc forum mondial de l'eau je pense que le choix de, du Sénégal n'est pas fortuit. Et Diapnanité, à la sortie de ce forum mondial, Diapnani, donc, waxuma Saint-Louis mais Sénégal waratul amati problème ndox parce que c'est dafa nekk denrée boo xam ne indispensable bu après 60 ans d'indépendance, nous avons wax des quartiers à Saint-Louis wala Dakar wala à dañuy am problème un ndox là aussi c'est inquiétant. ah xanaa di ñaaxaat autorité yi rek parce que euh, ce dommage bi les si la commencé mun peut-être mun ñu wax sax euh, que euh, tu day toj genre yoyu, mais faut que aussi waa kër yi ñu mëna économiser parce qu'on voit ici au Sénégal il y a certaines régions yi nga xamanteni même dans les localités ndox jafé na len té nous aussi mënuñu nekk si kër yi tout le temps di utiliser beaucoup d'eau parce que ndox moy lepp kuko ko mëno mënoo survivre loolu moom pour man mom c'est pas normal parce que ñi nek ci Saint-Louis yëpp xam nañu ndox ni mu ni mu précieux ci ñun ñi euh, faut que aussi ñu sensibiliser comme ni ko waxé autorité yi ñu gëna bayyi xel ni amna ñu nek seen ginnaw soxla nañu ndox mom bobu mom xaw foot bi si kan lay jógee xaw ma fausse parrainage parce que seen eau la ñoom ñoo ñuy fournir ndox moomu mais peut-être problème bi matériel looy yooyu la nekk ba mën nga xam ne ndox du mën a ñëw si dans les dans les maisons. ah xanaa pour ñu passer waale message messages rek son gën sensibiliser. si waa gën sensibiliser la population si forum bi bu ñu war organiser Dakar euh, di leen wax rek ndox mi ñun ñoo ko té aussi y a certaines comme ni mako waxé village yi nga xamanténi soxla nañ ndox ñu wax état bi mu gëna a jël disposition pour ñooñu mëna am ndox bu ñu survivre. waaw coupure comme ni nga ko rek coupure ndox yi mom ñëpp xam nañ ni problème la ci ndar euh té wax dëgg yalla ñun surtout ñun ñi nga xam dañ yor école yi lim ñuy gàllankoor dafa metti ci liggéey bi mais même ci walu cet gi té vraiment. ecole euh, ndox bëccëg lañ ko soxla soxla wuñ ko guddi donc fi mu toll nii bu fekkee ne yow bëccëg bi amuloo ndox nga nekk ci situation yi am ay xale lu nekk maternelle am ay élèves yu nekk formation bugg dem ci toilette ndox amul vraiment condition di d'hygiène dafa metti loolu da ngay dem ci voisinage bi di wuti ndox di ñaan ndox pour kii te loolu tam dafa metti te vraiment war nañu dimbali ba nga xamante ni ndar ni mu nekkee ni quand même ñu yokk capacité ba ndox mi ñu di ko mën a am au moins le jour surtout école yi ak centre nga fay fii nit ñi di dajaloo ci mbooloo mais vraiment bu dul loolu moom dana gën a metti encore moo di ni ñun bi ñu nekk xaleel euh, gis nañu ndar boobu barewul tollu ñu nii li ñuy tuddee château d'eau yi muy taaxum ndox amoon na fi 4 xaw ma 5 léegi ndar bi nga xamante ni population multiplié nañ ko par 20 ou 30 mu nekk ci am ci ñett ñett xaw ma ñeent fi nekk mais ku ko gis daa xamante ni dëkk bi ni muy màggee lu ndar warul parce que problème prévision rek la yii nga xamante ni tey jii nii boo demee tey jii nii ville ñaari taaxum ndox ya fa nekkoon yëpp ba nekkoon nord comme ba nekkoon sañ ba brasé nañ leen mais boo bëggee boole ñooñu soor ni mu yokkoo ci nit ñett yi fi nekk nii mais ci problème bi dafay nii rek ma je crois que ni problème planification la ndax nekk ñun ndox mi jógul Lac ndox mi ci dex gi la lañ koy traité kii dex am na ndox waruñu vraiment ñëpp war nañu am problème ba mu des ñu